mahad xikmatal yawmi li tarbiya al islamiya wa taalim markas asi ahmad bamba touba daaru tanzil ak mahad xikmatal yawmi li tarbiya al islamiya wa taalim markas cheikh mahamadul mortada nekk ci site ouvrière ñoo leen di may xikma bi muy daara yi nga xam ne nii waa daara ji taxawal nañu ko ba dong daara yi ñoo nga cay jàng muy góor mu jigéen ku ci bëggi leeral wala nga bëgg caa indi sa tànk nga woote ci 77 633 77 56 tey ñu fas yéene andil ma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te mooy wéyale leenu tàmbali woon ak yéen fan yi muy soññeeb sëriñ bi jëm ci jullit ñëpp waaye rawatina ñi jiite mbooloo ci yoon wi donte ñetti nit lañ baa ñaar responsabilité la masuliya la bu rëy rëy boo xam ne nii kenn ku nekk war na koo bàyyi xel ah ñam jamonoon tool ñam ña nga xam ne ni ñam la bokkaloon jamono di te yar leen ñu jaayante woon nag moom daana leen ko dénk te daanañ ko jariñoo kon nag ñu nit war nañ koy fàttaliku di ci jéem a roy te fan yi ñu andi woon ci yu am am solo sëriñ bi eh, dégg naa ci sëriñ Moustapha si moom sëriñ Malick Basin si mu ne sëriñ bi dafa masa woo lu bari ci ñi jiite mbooloo maanaam ñi ñuy wooyee seex yi ab jataay ne leen bëgg ngeen xam ne taalibe yi juru leen leen taalibe yi jëndu leen leen taalibe yi jàpp leen leen ci tooli xare taalibe yi ay sàmm rekk ngeen ci ñoom ab sàmm nag bu xëyee di sàmmi daañu ko bindal ñaari raa muy bum réer bum ruur neena na saaboo e, andee sa caawoo ñu ñibbisite réeru réeruñu ruuruñ nee bu boobaa e, wàcc nga ci santante rek ngeen di mujj dal na waaye nag saa boo réeralee mbaa nga ruural ci jàppandi téere baat ngeen di mujj te sëriñ ak taalibe nag taalibe fa muy jofalee moom mooy bis sëriñ fa muy jofalee ay taalibe mooy bis penc kon kenn ku nekk ña aju ca moom na fexe ba buñ réer buñ ruur nam ko fexe nag mooy aw ca siraatal mustaqim woo leen ca ku ca wuy si ah wàcc nga ku ci wuy si wut eh, sëriñ bi moom wàcc na ndax aw na ci te woo na la ca itam leeral na la ko itam ba mu leer nañ kon loolu yi eh, loolu yi laraan laraan jataayoo ak njabootu boppam ngir bëgg ñun ñëpp ñu jariñoo waa moom sëriñ bi itam daana wax ne na ngeen def lislaam muy seen kër te ngeen ñagi ko alquran te lu taxaw ci gannaaw ñag ba di leen woo lum niru niru niru niru lu nekk ci dëgg bu leen ko wuyu seytaane la dal ne mbooleem ñi may tuddoo ci askan wala ci bokk ak luñ mën a doon ci man te yoruñu jikko yii ma leen di wax jotewu maag ñoom dara am na ci mag ñi koo xam ne bokk la woon ci bokk yi da koo miinoon lool mas naa ñëw ne ko dama bëgg nga seexal ma sëriñ bi ne ko ana loo ma defal ba ma lay seexal lu jar seexal mu ne ko kenn defaloo lu ko jarkat sag mbaax rek nga seexale ñépp sëriñ bi ne ko jege si la ma wax la luy seex ne ko xam nga luy seexa mu ne ko bëgg naa koo xam mu ne ko saa yoo seex loolu bon kenn gënatulaa seex la ci des nag boole nit ak mbooloo la te loola julli ñaari rakka moom ma ko gën a jafe dal ne ko jaamub yàlla bu ñuy wax Abdul Xaadir Jaylaani ak Junayd yu la ci sun borom mayoon lu mayutoon kenn boobaak léegi nag mën la ko sun borom rafaatale ma mën ci loo xam ne nii kenn mënu ko ne ko waaye nag ceex googu yi ngay wax kat dama laa bëgg xamal ne mooy boole nit ak mbooloo mbooloo mi may ma yebal fii yéen dama bëgg ngeen xam ne lu ñuy sax sax sax fii yéen dangeen tàggoo lu ñu liggéey liggéey itam seen bopp lañuy liggéeyal kenn ku nekk bu xëyee lu mu liggéey ñu defal ko ko ci keesam ah lu ngeen yàgg-yàgg ak ñoom it jëruñoo wettalikoo ndax daañu leen rob ba ngeen jeex ñu rob leen bañ jeex te du ngeen bokk bàmmeel kenn ku nekk itam say jëf rek lañ lay fay dal ni ko koo xam ne nag lu mu yàgg-yàgg fi yow dangeen tàggoo te lu mu liggéey liggéey it boppam lay liggéeyal boobu ànd de ku xam lu muy jariñ yaa ko xam waaye man ahmadu xaw ma ko loolu lam bëgg a wax mooy kenn ku nekk la nga jëf yaa ko moom keneen moomu ko loo jëful tamit lu la waa jege-jege te di ko jëf moom moo ko moom moom ma ko jëf waaye yu mu jëful amoo kon nañ farlu te góorgóorlu te yeewu te góor góorgóorlu nag bu baax a baax ah di soññaat sunu bopp di soññaat mbokki jullit yeeg mbokki taalibe bi yëpp ci jàppale gi ñuy jàppale waa daara Hikmatul Yawmi